dañoo gis ne bi ñu tànnee suñu candidat ba pare muy le candidat Amadou Ba le président de la république dañoo toog ñu waxtaan xool mu nekk euh, région bu nekk quatorze régions yëpp kenn région bu ne ñu tànn fa benn délégué régional. ñun nag fii ci région de Diourbel suñu délégué régional mooy le ministre Papa Diouf mu war a ñëw fii tey ci département de Mbacké pour de première collecte de parrainage bu ñu ñëwee ñu gis ne dañoo constaté ne benn xeetu boycotté boycott boo xam ne. responsable yu bëri dañoo mel nii dañoo taxaw reconnaître ñu euh, Pape Diouf wala nee nañ ci information yi ñu jot ñoom dañuy dem jël seen parrain dem joxe ko le coordonnateur national euh, pôle parrainage muy Abdoulaye Diagne may lancé appel Abdoulaye Diagne képp ku fa indi parrain na ko delloo ci na ko renvoyé mu dem ci délégué régional bi parce que dafa am loo xam ne c'est manqué euh, nu ñu ko waxee de respect au président de la république parce que tey jii moi qui de qui vous parle tey bu nekkoon ne Amadou Ba dafa nekk dissident dem wuti yëfu boppam comme ni ko ñoom Aly Ngouille defee ñoom Mame Boye Diao defee man du topp Amadou Ba mais discipline de parti dafa baax te fii ci Touba dañoo gis ne loolu dafee manqué le délégué régional Pape Diouf amul lenn loo xam ne ñoom ay responsable lañ te ëppale nañ ko ko parce que Pape Diouf a été ministre avant le président de la République Pape Diouf est ministre après président de la euh, région bi rebar ko ci département mu ñëw fii ñëw pour collecter parrainage ñëpp war a ñëw taxaw ñëw jox ko parrainage yi nga xam ne moom lañ am mu bindal la sa décharge foo ko mën a publier nga publier ko waaye kenn ku ne toog mel ni kuy remettre en cause li nga xam ne moom la Pape Diouf di def fii kenn ku ne mun na ko Abdoulaye Diagne est un ami il est un frère boo xam ne on a on a tout fait à l'université tey je peux l'appeler et lui remettre mes parrains wala je peux j' damaa jël samay parrain dem jëbal ko zone bi nga xam ne moom laa bokk zone boobu ñëw jëbal ko ah, kii nu ñu ko waxee le ministre Pape Diouf ñu bëri ñëw ànd ak seen i militant toog Touba di ko seetaan pour yëpp mel ni ay xeetu sabotage wala nangam wala dugg na fi génn fi seen li ñuy def ñun xam nañ ko deux poids deux mesures la ñuy def dañoo. àndul te candidature amadu Ba bi gi nga nit boo àndul ci dara da ngay jël sa courage taxaw beer sa yëfu boobu dem taxaw yu mais nekk fii di souffler le chaud et le froid il faut que ça cesse département bii nag ñoo ngi lancé appel au ministre ak nu ñu koy premier ministre candidat de la coalition Amadou Ba la fi doon am lañ doon lebal Macky Sall duñ ko ko lebal Macky Sall dañoo amoon ak moom devoir de loyauté Amadou Ba amuñu moom devoir de loyauté devoir de nawle lañ am moom daf ñuy respecté ñu liggéeyal ko respecté wuñu ko nu golo xam boote doomam en réalité c'est de ça qu'il xool la nga xam ne les combines de salon maanaam les mani kii ni euh, de salon yooyu ñuy def gestion solitaire kumba am day kumba amul ndey bu ko Amadou Ba defee wallahi azim le soir risque le réveil risque d'être brutal le soir du 25 février 2024 te loolu moo nar a dal Amadou Ba waxuñu ko nag li fi nekkoon na ko sànni ndax ñoom il ont du mérite waaye nag il faut mu revoir affaire yi waaw la woon wane na de message bi may adressé au président de la république Macky Sall def na fi li mu fi war a def en 12 ans lépp nag munta jag waaye nag li ci ëpp jag na la nga xam ne nag moom moo ko fi dese mu joxe réew mi nag gëstu ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci Touba parce que man je me suis dit que renseignements généraux yi PV yi ñu yóbbante pale ban façon PV la cest dire que li am Touba ñun ñu xam li am ci terrain bi bëri na loo xam ne tey jii dañ ko war a rectifier Touba bañu ñu président de la République mais munoo nekk responsable boo xam ne yow sa base Dakar la kenn du la woo téléphone nga wuyu du du doo dem ngénte doo dem dëj doo jënd ordonnance doo lijjante ku am problème police doo lijjante ku am problème gendarmerie ku la woo du la jot ku ñëw sa kër ñu ne ko woo ko nga jël ay ay garde corps téye ko booy ñëw Touba tous les mois ngay euh, deux mois trois mois weekend boobu ngay ñëw Touba booy ñëw di ànd ak ay garde ba pare boo walbatikoo dem Ndakaaru di jaay jomba ñaaw ak dugg na fi génna fii tu as mal pour avoir des parrains loolu moo tax man je doute que est-ce que ñoom am nañu ay parrains moo tax tey ñëwuñu fi président de la république na xippi bëtam xool am na jeunes yoo nga xam ne ce sont des jeunes yoo xam ne ay jeunes yu am valeur lañ jàng am compétence ba pare nekk fii di mouiller le maillot nuit et jour nañ leen mettre les responsabilités devant te ñu ànd ak le coordonnateur régional ñu collecter leen le maximum de parrains te li nga xam ne laay wax na président jox Ablaye Diagne ay instructions fermes képp ku fa indi ay parrain jóge ci région ak foo mën a jóge na la refoulé sa délégué régional ba waaw